amee internet Kër Ndanane TV ñu ngi leen di jaajëfal uh, wax ne ne fi mu ñu ngi fi nga xam ne ne mooy place de l'Obélisque uh, fas yéene ànd ak ñi nga xam ne ñu am ànd sàmm nga xam ne ne ñoo fi amal nga xam ne mooy mobilisation pour xeex li nga xam ne mooy wàllum góor jigéen da gis ne fi mu population bi wuy si nañu en masse accompagné par les imams ak képp xam ne yaa ngi ci religion di si yëngu ñëpp ñëw ñu ngi fi ñu wax ne ay ñëm Karim Khoufaat taxaw di xeex li nga xam ne ne mooy wàllum góor jigéen ñoom ñëpp teew nañ du yàgg dara dañ ci am par kenn kenn waxtaan ak ñoom ñu wax ñu li waral seen teewaay fii ak ni ñu gisee li nga xam ne ne mooy loi bi nga xam ne ne ko war a voté te gis nañ ne fi ñun Sénégal taxaw nañ teem ci ay ndaw ci ay kilifa ci ay kilifa diine taxaw teem que ne fi mu toll nii lii di góor jigéen duñ ko nangu fii ci biir Sénégal loolu amoon li ma leen wax di leen wax ne ne si di ngeen nga xam ne ne ñooy les responsable yi nga xam ne ñoo yor association bi ñi nga xam ne ñoo yor mouvement bi ànd sàmm jikko yi ñu fas waxtaan ak ñoom ñi nga population bi di waxee ñi nga xam ne ñoo wuy si ñu ngi ne góor jigéen du fi am donc dañ ni di déglu ànd ak ñoom li nga xam ne ne mooy journée tey ñu ngi leen di jaajëfal dëgg membre ànd sàmm jikko yi Omar tey ñu fekk la fi nga xam ne place de l'Obélisque Sénégal moo jógaat pour waxaat ni ñun ñoo moom suñu bopp ah, ñu criminaliser góor jigéen teg ci kawam ay daan yu leer parce que tey Sidiki Kaba su taxawee mu ni aux yeux de la loi il n'y a pas d'homosexuel au Sénégal patron wax na ko dem na ba itélé ñu laaj ko mu ni les góor jigéen n'aura pas de problème avec l'État du Sénégal association bi en tant que coordinateur muy euh, yow nga jiite li nga xam ne ne mooy nga nekk coordinateur nitu dëgg euh, nitu dëgg tey lan nga ñu si mën a tekki xale yi dañ doon fooyee ay fen dañ doon fooyee ay lépp loo xamante ni nii àndul ak dëgg àndul ak valeur loolu moo waral ñun ñu teg ñu mouvement bi depuis 2015 tey lii xew fii nii nii tey ñun ñoo ko déclenché depuis 2015 bi ñu libéré les onze homosexuels yi nekkoon à Kaolack ñun ñoo woote ñu woote ay ay ay ay kilifa yu mbëri ay sëriñ daara ay professeur ñu leen il faut ñu du lu baax ci réew mi si lañ njëkk a def ay réunion def ci ay marche tuddee ko collectif non à l'homosexualité noo gisee population bi nga xam ne ni yeewu nañ ci dimanche ak dimanche nit ñi di reposé wu seen kër tey place de l'Obélisque fees dell ci ay ndaw ci ay kilifa yow loolu noo ko gisee waaw kontaan si ñoom di ñëw nañ taxaw pour ni dañuy sàmm ndonal maam yi parce que bu njëkk euh, population bi surtout jeunesse yi gars yi dañu leen doon dañu leen doon nelawal dañu leen doon dugal ci ay mbir yu pervers jeunesse bi ñu ngi leen di wax gàcce ngaalaama di leen wax ni aussi bu ñu dellu ginnaaw nañu gën avancé ci xeex bi xeex bi bu ñu ko bàyyee mag ñi mag ñi ñu baax lañ ci xeex bi ñoom ñoo ñuy orienté ñoom ñoo ñuy inspiré réew boo xamante ne imam Dame Ndiaye fii la dëkk docteur Ahmed la fu mu dëkk oustaz Mor Kébé fu mu dëkk ñun suñu réew góor jigéen du fi jàll du fi jàll tey du fi jàll suba te dañuy def loi incha allah pour criminaliser loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu di gis ni lii mooy Sénégal ñun lii nañ bëgg Macky Sall ñun bëgg ñu leneen lu bëgg criminaliser ñu homosexuel parce que sunu sunu ak sunu mag ñi ak sunu rakk ñu ngi yàqu si lii moo tax ñu jug si teel teel bi pour xeex te nee na Assane Dia buy déroulé la te loolu ñun doon koo gis Assane Dia boobu mu ngi daw ñun doon koo gis moo tax ñu jug si ANCAR sàmm jikko di ñu ñu ngi leen di xamal ne ñu ngi seen ginnaaw ñun ñëpp jënd du ko benn yoon ci li nga xamante ñun dañoo bëgg ñu dëggaloo ñu ko ensemble ñu voté ko bu boobaa ñi xam ñi ànd ak askan parce que boobu ba léegi ñu ngi ñuy nax ñu ngi voté ay député ñuy dugg mais alors que duñ fa nekkal askan wi te askan ñoo lay fal pour d'abord il faut savoir que euh, loi bi nga xamante ni pour criminaliser li nga xam mooy bu doon toon diine sax dafa rafetul dafa jekkul maanaam tey ji góor jigéen di am suñu réew dañ koy criminaliser par force parce que le jugement populaire il faut que loi boobu ñu criminaliser ko soit criminaliser ko suñu bopp voté bopp suñu loi loi populaire wala soit ñoom ñu exiger jël député yi benn par benn ñoo leen di fay suñu xaalis on les paye des millions jox leen carburant jox leen essence nous les sénégalais ce qu'on a dit mooy criminaliser homosexualité Sénégal nag frère dañoo tàmm benn affaire ku xeex dëgg ñu ne terroriste nga man terroriste laa ñu ne mooy lool waaye ku fi def lu bon ñu képp ku def lu ñu defal la promo képp ki nga xamante ni wax nga lu bon ñu defal la promo ku wane say cër ñu defal la promo. si rajo yi yàgg nga dégg na yàgg naa def intervention mun na ay 10 ans Walfadjri Zik FM Sud FM rajo yëpp dama ñëw ne Sénégal va mal. gisuñu woon tey kilifa diine yi ça fait des années ma kilifa diine yi jug ñu xeex parce que tey suñ xeexul tey injustice dina dal suñ kaw actuellement état bi laal nañ diine. lii xeeb nii suñ bàyyee mbedd bi am góor jigéen yow may seetaan nii sa doom dem jàngi am bi góor jigéen ànd sàmm jikko yi nekkul mbiru diine parce que tey soo xoolee tey musulman nangawul góor jigéen taxaw xeex man sama wax moo nekk lan Macky Sall na dégagé donc euh, du sama cër euh, may toog sama kër di toog di seetaan ay julit yu xeex loo xamante ni lislaam daf ko euh, euh, ŋàññi daf ko dàq. du du christianisme du lislaam bi ñu dund Sénégal ku rey nit ñu rey la gis nañ temps yi meurtre bi ni mu bëree ku sàcc ñu dagg sa loxo. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu waa euh, su mbokk internet yëpp ah di leen ziar bu baax a baax di rafetlu seen teewaay di ñaan yàlla rek ba ñu wax lu ñu def proposition de loi jébbal leen ko pour ñu criminaliser homosexualité ñoom ñu xëppaat ñu ko ngeen fi amee. mais xam nga boo xoolee mbooloo bi xam ne nii Sénégal la Sénégal ñoo jóge ci coin yu gën a ruqee mi ngi fi imam alxuraan mi ngi fi ñëpp ngi fi ñu ànd booloo ne dañoo bëgg ñu criminaliser homosexualité léegi nag olof ne bés bu rusulee day toj def nañ nag dajaloo bu njëkk ñu def nii defaat ñaareelu dajaloo def nii ñetteelu dajaloo bi nag dina dépassé fii criminaliser euh, de bétail ku jaay yamba dañ lay kuy tuux sax dañ lay tëj la ay at yu bari bu ko defoon ci góor jigéen kon du ñu am seen ndax dañuy sëy feneen waxtu wala ay jàkk donc kon loolu si ñun dañu am benn chance suñ ñàkk chance la am njiit boo xamante ni en loolu nag moo tax ñun nag ñoo am fulla waññaar loxo mu def li ñu bëgg ñu gis ne bu ñun ñoo ko fal wan leen rek ni Sénégal ñoo ko moom mm-hmm. ñun amuñu limite Sénégal amuñu fu ñuy yemale mm-hmm. amul te buñu dañ dem bu ñu adresse suñu déggul beneen yoon ah buntu pale lañ jëm d' ñi nga xam ne ne ñoom nañ fas maa ngi ñi nga xam ne ñoom nañ tànn ci a fas yéene teew ji assemblée ci loi bi yow loolu ci wax loolu waaw non loolu moom mooy élection législative yi ñu koy préparé ñun incha allahu rabbi dañuy dem assemblée nationale ku ko wax wax dëkk bu am valeur ku ko wax wax dëkk xam-xam waaye dëkk boo xamante am nañ dono bu extraordinaire si suñu maam yi dañ ñoo indi fii ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa te lu tax ñu indi ñu fii mooy ñu yeggale mission yeneen bi bu ñu gisee loxo

ñu am benn charte boo xam ne moo ñu boolee tënk ñu ñëpp muy constitution moom la wax ndey charte réew mi moom moomu nag moo wax àq ak yelleefu sénégalais yi moo wax ni sénégalais yi képp ku am xalaat wala gis-gis sañ nga ko wax wala nga bind ko wala nga fésal ko ci nataal wala nga boole dajaloo ci benn place ñuy wax manifestation pacifique loolu lañ doon jël tey jii ndax yoon moo ñu ko may ndax dafa am loo xam ne jaaduwul teguwul ci yoon te juróom nit dong décider ko jalgati yoon di wan sénégalais yi ni ñoom duñu dara tekkiwuñu dara duñu nitu dara li ñu seq ak ñoom rek mooy mbiru xaalis bu ñu leen soxlaa ñëw sotti leen xaalis bu ñu noppee nag déglu ñeneen di doxalal ñeneen di jëfal ñeneen wan leen ginnaaw loolu moo waral tey askan wi nii mu génnee bettuñu ñoo ngi ciy sant yàlla mais di ndokkeel particulièrement la jeunesse sénégalaise di ndokkeel jigéen ñi mais di ndokkeel kuréel yi ànd sàmm ji ko yëpp rawatina suñu kilifa diine yi muy jàngu bi muy bois sacré bi mais aussi muy jullit yi nga xam ñoo nekk ci réew bi